asalaamaaleykum askan ñu bàyyi xel ci seen site bu am solo bi di sunugal 24 point net sunugal 24 point net dellusiwaat seen jotaay bu am solo bi léegi seen jotaay xalima bu ñëw mbokk yi xalima bu ñëw Kër Massar boo ñëwee station euh, Total bi ci garage Ndiaga Ndiaye xel itam di dellusiwaat ci jëm ju di di Cheikh Mourchid Fall Cheikh Mourchid Fall lañu euh, daal amal jotaay mu mel ni dootuñu leen ko présenté ci euh, média bi di jëflante ak jaamu yàlla yi Cheikh Mourchid waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk mi Cheikh Mountakha ñu ngi lay nuyu sa àndandoor te nuyu askanu Sunugal 24 yëpp ca kaw ba ci suuf en même temps ngi nuyu waaye Sénégal yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di xaasal bu baax kilifa diine yi di leen xaasal ak nuyoo ak cant ci seen taxawaay bu rafet ci kilifa aada yi tamit di leen xaasal ay nuyoo ak i cant ci seen taxawaay bu rafet ci askanu Sénégal. jërëjëf Cheikh Mourchid Fall mu mel nii euh, ni ñu koy waxee saa su ne euh, léeg-léeg mu mel da ngay xaw bi xaw a jafe lool ci ci ci wàllu média bi euh, Cheikh Mourchid lan moo waral day toog ab diir bu ñu la dégg mu mel nii daal da nga nekk ci yitte bëggoon ko xam. waaw bu sañoon sax duñ génn dañuy tëju rek di wéet ak suñu borom ndax wéet yàlla lu nekk ci waaye nag askan wi yàlla daf ñu koo dénk moo tax taxoo xalwa foo tollu rek di tëju. daanaka wax dëgg yàlla njëriñ la waaye sa njëriñu bopp la faw ñuy génn di wax askan wi ci li yàlla dénk suñ ca paree tëjuwaat di wax askan wi léegi léegi nag euh, wax naa la Cheikh Mourchid objectif am bët ki démb laa la ko wax sama jotaay yu njëkk ak yow mooy bëgg a baax rek taqoo alquran ak taqoo wird ak jaamu yàlla te indi nit ñi jàmm te jàpp ne maa ci gën a xees te gëmp ko daal waaw jàpp ne maa ci gën a xees yi mbindeef yàlla yi te gëm ko te gëm loolu muy dëgg di ñaan yàlla rek mu jéggal askan bi di ñaan yàlla mu sotti ndoxam wërsëg ci Sénégal ak adduna bi yëpp. jërëjëf Cheikh Mourchid Fall ci leeral yi am solo yooyu Cheikh Mourchid mel tey nag dama li ma gën a indi fii tey ci diwaanu Kër Massar mooy tey wéet ak ci jotaay boo xam ne ci wàllu càngat bi nga xam ne dañ koy dégg muy càngat gi nga xam ni tabarkàlla mosoon nañu dégg nga génne fi ñetti càngat yi nga xamante ni daje daj na àddina mm. maanaam càngat yooyu boo ci dégg benn benn boo ci dégg rek xam ne loolu daj na àddina mm. euh, ñu ñëw ci benn càngat gi nga xam ne dañ koy faral dégg fan yi hmm. ñu ne la càngat benn càngat la goo xam ne moom ngay joxe te hmm. loolu nag bëggoon naa mu leer nga leeralal ma ci askan bi tam mën koo xam càngat gi nga xamante ni itam génne waan nga ko te bëri di ci wax nag waaw xam nga alquran daf ñoo wax ne li ilaafi qurayshin ilaafihim rihlata shitaai wa sayf falyabudu rabba hada albayt alladi at'amahum min juin wa amanahum min xawf yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi gën a àdduna ci weeru weeru weeru lolli ci jamono lolli ñeent moo am dafa am nawet am séebéet am lool lolli am noor noor nag mooy bu demee ba dara amatul lépp a ngi wow lolli mooy bu ñu demee ba lépp lu luñ bayoon ci suuf ñor bisaab beeg kànja geeg jaxatu beeg ceeb beeg dugub jeeg mboq meeg so yëpp ñor na loolu mooy lolli muy jamono boobu moom ci la yonentu Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gën a àdduna أنا بشار ربيعي إسكانك ay للأرض والشفيع بكل قطب مهدل noonu la wéykat bi wax mu ne maa ngi ndokkeel Seydina Muhammad mi nga xam ne moom moom loolu la moom yonentu loolu la waaw ñi feebar bu ñu ko jegee wér ñi tiis bu ñu ko jegee mu jeex ñi tiit bu ñu ko jegee mu jeex ñi jaaxle bu ñu ko jegee mu jeex mooy du mooy mooy loolu dëgg dëgg mu judd gënee a ci loolu mag ñi mag ñi dafa am cangat yu ñu doon def ci lool loolu yoo xam ne bu ñu la ko sangee benn yoon da ngay kawe rek soo koy sangoo doo toog ci suuf soo koy sangoo nangam ak nangam ak nangam boo boo ñëwaan dañ lay aj sang la ko buñ la ko sangee benn nga nekk ci entreprise wala nga feebar wala nga ut ba sonn amoo wala nga tukki mënoo am kayit wala nga tukki mënoo ñib si ndax gàcca ndax ba amoo fa dara bëggoo ñib see noonu yooyu bu la yàlla dimbalee woon ma nga dajee mag ñi ci loolu bi ñu camp la campal loolu boobu noonu dafay doy waar boo demee sama mbokki pël yi nga xam ne xam nañ garab dëgg dëgg dëgg dëgg dañ naan la sump garabu olof la <clears throat> moom bu ñu koy dagg sax dañ ne garabu olof. moom sump waaw sump. sump boo xoolee sunguf sump dafa weex tal sunguf sump dafay mel ni su nga nu mu weexee nii moo lay xamal ne léppam teraanga la. moom sump moom sump léppam teraanga la léegi nag su la ci yàlla dimbalee ba nga mën ci am ci waxtu wii dagg ci nag téeméeri garab ak ñaar ak fukki garab ak ñeent mu tolloog tur yàlla bi ñuy wax jaamiyoo xam nga yàlla mooy jaamiyoo. que yàlla moo dajale lépp wàcce alquran ci yonent bi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di jaamion alquran ci boppam jaamion la ndax alquran moo dajale lépp dégg nga nag léegi nag jibril mu wàccee alquran ci yonent bi sallallahu alayhi wa ko ci yàlla ah yonent nag daf ñoo wax ne nag seen garab yi mooy faj seen feebar si kaw bu ngeen xamee kon dafa am lool li càngat goo xam ne ni kum xasaraw rek mag ñi dañ lay wax ni nga ni nga ba déwén ba ñu góob dugub nañu waat kon jamono ji rek lañ ko mën waaw jamono bi boo demee ci àll bi tey Saalum dimanche tey bii dimanche suba bi dimanche ba ci gannaaw lañ commencé woon góob ñëpp commencé nañ góob léegi mooy jamono bii ku yàlla dajalee càngat googu dootoo ñee sa morom ci sa giir ak dund feebar bu am ci yow juróom fukki at da koy dindi gàllankoor bu nekk ci yow juróom fukki at daf koy dindi lu gàllankoor métti métti da koy dindi entreprise boo xam ne coow li dafa bëri entreprise bi taxaw dara doxatul da koy avancé nga nekk ci biir ñu lay xeex déedéet ah 114 sump nag du jaa du caaxaan. Ah, waaw kay <coughs> ci dëxiñ maanaam ci composition su ma koy dégg. muy euh, sump bi nga wax. mais tey est-ce que ñëpp ah, dañuy toll moment boo xam ne sump duñ ko gis day raar. xamuñu xas bi la xamuñu doom bi la ñuy dëbb. xamuñu xot bi la. Euh, li gën a gaaw jarul sax nga koy uti Casamance ndax man fa laa ko jëlee ndax boo demee ci Saalum yombul nga dëkk nga dem fa gis fa benn dëgg boo xam ne mën nga fa am garab yi ñu toll. waaye jarul dem foofu ñëwal ñëwal Kër Masaar rek man ut naa ko ba toog pour jaami yàlla yi léegi saako ba ngay seen moom la ba ba ba digg pour jaami yàlla yi waaye nag dafa am lu muy ànd ak ci alquran wa nunazzilu min alqurani ma huwa shifaau linnaas yàlla mu ne maa wàcce ci alquran loo xam ne saafara la yaa ayyuha nnaasu qad jaakum mawizatun min rabbikum wa shifaun lima fi suduri alquran nga ne loolu mën na ko mu ne yow mi am feebar ci biir mu ne yaxruju min butuniha sarabun muxtalifun alwanuha fihi shifaau linnaas man may génne li ci biir bi di ay jàngoro maa koy génnee man yàlla waaye nag ma saafara kon alquran loolu mbir moomu alquran lay ànd ak mu saafara la ci kaw saafara génnee jàngoro ju ci biir dindi nit ki teg ko nga amee rab nga amee faru rab nga am jànku rab nga sonn loo mën a def rek wat naa ci alquran boo ko laa ne tàggoog loolu da wér kakk te da ngay ubbeeku ubbeeku boo xam ne du ubbeeku coono de lu tax mag ñi boo ñëwaat rek boo nekkee ba décembre passé janvier nga ñëw ñooy la ah ceeb naka loolu léegi de wéy na waaye bu déwénee bu ñuy góob. waaw boo déggee ñu ngi góob dugub yi nga ñëw. boo déggee ñu ngi góob dugg yi nga ñëw kon nag yéen ñëpp ku dégg ne góob góob dugub yi Cheikh Mourchid la nga waroon dem ba gannaaw ku di euh, euh, ki ki dira indi na la ko Ndakaaru. tabarkalla waaw Cheikh Mourchid foofu euh, li may ñëw mooy càngat gi ñaata yoon lañ koy sangu ça dépend ci at mi. Mm-hmm. benn yoon la wala ñaari yoon la wala yoon ñu xam. càngat gi daal su leen la dimbalee. ba nga toog benn ngoon sotti ko seetal rek jeex na yow at mi bu ko laalati. ci ngay benn waaw ba ba ñu góob déwén bu ko laalati. te naa la waxal lenn nag gis nga say fas bu dee fas la dana gaaw gaaw boo xam ne say mbir dana yëkkati yëkkati boo xam ne say mbir dana dox dox boo xam ne dangay ngay yéemu ci yàlla càngat gi ku la ci laaj dërëm boo demee ñibbi da ko koy fukki dërëm ah, waaw boo boo koy sangoo rek gën caa néew 15 jours da nga nit ki fukki dërëm yow mi ko moom la ci yow mi ko ci fayoon dërëm Cheikh si su may dégg dafa mel ni ñetti càggat yi gënoon yëngal jamono. xanaa moom nga composé def ko benn wala lan la parce que dama. jaaxle ci ñetti ñetti càggat yi. càngat la yoo xam ne nii valable na ca jamono jooju. waaye duutoon lool li duutoon lool li de. waaye nag boo mosee lool li bu njëkk suñu maam bu ñu nekkaan Ndakaaru sax bi dañu dem gane ji suñu maam yi ci àll ba. buñ la tegalee maafe wala ceeb dañ ci fekk batañ te fekk fa jaxatu fekk fa kànje fekk fa naajo fekk dafay teg ceeb bu riche yaa ngi dégg ñooñu ñooñu ñooñu cancer du leen jàpp ñooñu jabet du leen dara dara du leen rey ca nga gën ak lépp loo xam ne mu ngi ci feebar yii ma tudd yëpp daf koy dindi ci yaram doomu aadama tey it daf lay may ak ubbeeku ubbeeku ubbeeku ci am ubbeeku ci wërsëg ubbeeku ubbeeku waaw benn baat bi mooy ubbeeku ubbeeku waaw noo ko pinkee rek muy ubbeeku xam xam man jékku say noonu raw say noonu gañe say noonu avancé si kanam ubbeeku càngat bi daf koy def waaw tabarkalla jërëjëf Cheikh Moussir mu mel nii eh, daanaka ci càngat gi sax moo a ndar képp jotaay bi waaye ma am tuuti rek li nga xam ni su ma ko mënee may sax ci ñaari simili sax eh, dama ne dinaa la ko dinaa ci ñëw muy wàllu eh, concours concours ci examen yi moo xam wala jongante lay nekk Cheikh Moussir gis na ñoo xamante ni ay jàmbaar lañ bëgg nañu jàng bëgg nañ ko lool moo xam ci wàllu concours mais tout le temps dañu mel ni amuñu chance ci wàllu examen dañuy échec. gisuñ ma. waaw déedéet gisuñ ma ndax sama cengat gii bu ma la ko joxee benn yoon nga koy sangu. waaw cet ak gàllankoor yi yëpp dégagé wu ma jox la benn baat ci alxuraan na la sangoo ko nga ko loo uti jot ci concours looy xëccoo looy xëccoo. Mhm. dañ ci jot bu càngat gi jiitu boo amul càngat gi nag buñ la sang buñ la sangee baqara ba naasi doo almi. parce que dafa am lu des composant yu des waaye boo gisante Cheikh Mourchid di nga am ni concours bu la neex rek engagé wu du concours sax nekkal ci entreprise bi gis poste sa kanam seen ko sa bët na ci sa xel na ci ñëwal wax ma ko ma jox la nga def jot ci defal fii ah, ñu embauché la nga bëgg embauchement nekk fii ñu def estage ay nangam jëluñ la ñëwal rek kon daal li ma gis nii mooy cengat gi lépp li gàllankoor lay lay récupérer ba pare. waaye nag Cheikh Mountakha benn problème la cengat gi am. waaw am. dafa am benn digg jamono bu jamono passé rek càngat gi moom passé na mooy diggante bi ñu commencé góob ba ngóob mi pare ñu commencé déqi gerte gi ba gerte gi pare ñu roñ ko naaf ko roñ ko yóbbu ko ci kër gi ba tool yi dara nawatu fa de moom moom dooleem moom lemu na ba déwénati kon Cheikh si tey fi may daanelee ci jotaay bi su ma lay dégg tey ci wàllu càngat bi mm. diir bi laa bëgg a xam moment bi nga xam ne xëy na ak ku ci mën a jot mm. bu ko passé déwén ah, xam naa daal janvier daal moom buy buy début janvier moom dooleem jeex na. cëngat gi moom jeex na lan la ñuy waxati waaw ah, parce que heure boobu dana fekk nit ñi far naa ko pare si tool yi. Ah, mu jeex takk waaw waaye diggante boobu nag. diggante tey bii ba booba jëmm joo xam ne soxlaam jaaxle dikkal na ko ak lu mën a ne ci kaw suuf na ñëw. alquran jii ma wax la ne yàlla wax na ci alquran wax ak sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa nunazzilu min alquran maa huwa shifaa'un linnaasi waaw maa lay wàcceel ci alxuraan dafay saafara nit ñi linnaasi te man nit ñi lay wax waxuma ak jinne yi de yi nit ñi laa bëgg ñu ñëw ñu partager seen soxla yi ma faj ko ci kattanu yàlla maa ngi muslu si yàlla nag toujours ma wax la ko di am fit ba waxal yàlla lu ma xam maa ngi koy muslu na'uuzu billaahi minal jur'ati wal istixfaafi bi huquuqillah yàlla li mu am ci man droit bi mu ma koy xaaj déedéet du ma ko toog yàlla waaye li may wax nii lu ma xam la lu ma jàngale lu ma mën la lu ma am expérience la. alhamdulilah ku sangoon lool li balaa loolu di déwén loo uti ci jam ci yow. macha allah jërëjëf Cheikh Mourchid euh, borom càngat gi nga xam ne ni càngatu lool li bi nga xam ne tey. Euh, moo ndar képp tey li nga xam ni mooy. li ma dégg mu jaaxaloon ma. ma ne tey su ma ñëwee tey nga indi ñu ci leeral yaakaar naa ne loolu leer na ci askan wi euh, Cheikh Mourchid daal ngay tàggatoo mel ni ñu lool ci nag sa jotaay xëy na sa jotaay dañ koy bëgg lool waaye gën bee dul bari. waaw sant yàlla di la gërëm nag bu baax ci jàppandal gi ngay def ci diggante nit ñi yàlla dénk dara ak askan wi waaye nag càngat gi naa la wax leen yaa fi dàq dox dag waaye mosoo dégg ku ko waxtaanee de ah. ah mosoo ko dégg de wax gaa yi ñu teg ko fi nag sama alal la ñoom seen bopp sax ñoom ñi ñaan bu ñëwee ma dimbali leen ki kenn mënu koo piraat xam kenn nga koy piraat ah. mooy góor ga ma ko joxoon mu ngi si biir suuf fii mënoo ko mënoo ko génnee si suuf boo xam moom mu jox la ko ah. kon maa ko xam man kenn tey ci kaw suuf maa jàmm ci la lépp xaj ci réew mi élection yaa ngi ñëw bu bal tàkk bu nit dee bu góor dee bu jigéen dee coow li bari na waaye yal yàlla sotti ndox mu sedd ba Sénégal nekk bopp benn bopp benn xalaat jogandoor toogandoor yàlla mën na loolu ci mbaaxam yal ñu ko yàlla defal ñu ngi gërëm site bi nag ñu leen di gërëm de di sant bu baax jërë ngeen jëf ñu ngi gërëm Sénégal yëpp ak xaalamu islam bi yëpp ñu ngi ñaan jàmm innahu waliyu zalika wal qadiru alayhi wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi Cheikh Mourchid Fall borom xam-xam tabarkalla ñu fekk si waatal kon ci xam-xam bu rafet bi fii ci diwaanu euh, Kër Massar boo ñëwee ba ci station. Euh, total bi ci garage Ndiaga Ndiaye rek daanaka yaa ngi ci diwaanam rek mu mel ni numéro téléphone bi moo ngi noonu rek di affiché ci sunu baaru écran 77 euh, la 224 40 53 wala beneen numéro bi 77 910 77 50 mbokk yi di ko ñaan la rek allah buur bi subhanahu wa taala doole guddal fanam lool euh, doole ko defal taw feex ak tay si rek na jaaxa defal ko saxar daal yi ni ki barke yonent bi mu yàgg lool di jëflante ak askan bi saa borom di ko ci defal ndam lool ni bu la équipe technique bu sunu gaal 24 point net ci wàllu éclairage bi caméra bi Mamadou Dóor waar l'infatigable di ko beral bu ñëw fii ci diwaanu Kër Massar nga daal di am jàmm yàlla na yàlla sa borom bi doon lu ñu defal jàmm ñu wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu